asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen ndokkeel di leen baalu ak di leen baal ak di dellu di tuub si ñàkk gisante yi fan yi ñu weesu dara waralu ko lu dul jàmm ak tamit quelques soucis technique yu ñu amoon loolu moo waraloon tey jii ñu gëj a gisee ak yéen suñu mbokki internet yi nga xam ne yéen a choisir la chaîne leader Dakar People saa su ne seen dundin ak seen nekkin comme ni ñu koy defee saa su ne di ànd ak yéen di woyale ak siwal ak feeñal boroom xam-xam fépp fu mun nekk ci biir réew mi tey nag dellu si waat nañ am contentement ak mbégte beneen yoon dalal mm. kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable mm. ñaankatu katu yàlla jàngale ak jàngkat bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam si sëriñ Tidiane Ba Serigne Thierno Tidiane Ba nuyu nañ la. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel bu baax di kontaan seen ñëw fii di leen ñaan yàlla tawfiq ak taysir nuyu waa Sénégal nuyu waa àddina di ñaan yàlla subhaanahu wa taala feebar bi yàlla na ko yàlla jeexal feebar bi dooy na waar lool nit yi war nañu moytu tamit bu baax a baax ñun ñëpp war nañu moytu parce que fan yii rek ñu ngi dégg dese yu bari macha allah yàlla rek moo ko mën a dindi fii moo ko mën a raxas moo ko mën a jeexal yàlla na ko yàlla jeexal bi jaay rasul Eh, am na sarax bu ma waxoon fii nag président war ko jiite wante dafa mel ne dañ ko defuñu ko daal mhm. bi yoon nag dinaa waxaat beneen suñu defee baax na suñu deful baax na moo jiite réew mi nag moo ci war a jiitu mhm. bii nag suñu defoon ci pale bi sax baax na mhm. parce que ñun ñëpp ñoo bokk pale bi mooy central bi eh, mooy téeméeri kaamil ak ñaar saa dee kaamil te mooy adadu amin yu ñu war a wàcce waaw yu ñu war a jàng mm-hmm. mooy adadu mubin tamit mm-hmm. comme suratu yaasin soo demee juróom-ñaari mubin ñu ngi foofu mubin mooy cent deux amin cent deux léegi nag kaamil yooyu ñu war ko wàccee ci biir euh, pale bi léegi suñu mënee def tamit ñaari nag baax na mooy bu xonk ak bu weex mm-hmm. ñaari yekk daal suñu ko mënee tamit ñu def ko sarax def kaamil yi dina baax ñu ñaan daal ci réew ñaan ci àddina bi ñaan ci feebar bi yàlla jeexal ko suñu mm-hmm. defoon loolu yàlla dina def jàmm mm-hmm. nit nag dina wax dara fekk nag mon na am ñàkk ko gëm wala nga xaw ko xeeb wala yu mel noonu mm-hmm. wante tamit yàlla day won ay jaamam loolu tamit ñu ngi koy wax président incha allah suñu président Macky Sall Marième Faye Sall ñoo jiit yàlla na yàlla defal ñun ñëpp ñaan yu ñaan yàlla nangu ko ci jaay incha allah loolu la ci loolu laa doon ubbee rek après ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. macha allah Serigne Tidiane ba leeral yi am na solo trop dénkaane am na solo trop. Hmm. bu ñu paree ci loolu yaakaar naa mun nañ dëgmal waxtaan bi comme ni ma ko waxee ci njëlbeen. Hmm. waxtaanee xam-xam. Hmm. waxtaanee tamit jafe-jafe yi nga xam ne jaamu yàlla yi dañ koy faral di jànkonteel. te bu leen dalee seen xel yu mel ni yow. pour saafara. Serigne bi tey suñu question bu seet. li si xaar. Ah. yaakaar naa buñ nee. Hmm. sëriñ. Hmm. yaakaar naa bunt bu njëkk ci moom mooy. Hmm. mbirum seet. tey jii sëriñ Thierno Tidiane ba ba ñu doon wax ci tënk ak leeral. lan mooy dégg-dégg seet. ana lan mooy njëriñal seet ci doomu waaw seet de man ku ma seetal incha allahu di nga sant yàlla bu baax te te ku am saas rek laay seetal ku amul saas duma ko seetal. parce que dinaa la seetal seet sa biir seet sa bit te nit dafa am ñaari numéro am na numéro zahir am na numéro batin danga war a xam numéro nit ki nag bu feeñ ak bu nëbb nga mën a xam sarax bi mu war a def lan la loolu nag mën nga ko jaaree ci yoon yu bari eh, mag yi sax dañ ko doon def lu njëkk arab yi sax dañ ko doon def suñu bëggoon def dara dañuy jël ñaari affaire comme ñaari fooy rek bind fii naam bind fee laa beneen fooy bi laa naam mooy waaw mooy defal beneen bi mooy laa bul def mhm. bëgg tukki tey dugal foo ñaari foo yi bu dee bu naam bi moo génn bu bu bu waaw bi moo génn parce kon demal tukki bi baax na mën nga tukki mhm. bu dee bu laa laa bi moo génn naa ko ah déedéet baaxul bul dem wala bu doon tey sëy tamit ñu wax ah déedéet baaxul bu doon da nga bëgg ubbi place wala bëgg dugg ci leen nag loolu baaxul léegi nag listixaara tamit macha allah yaatu na lool euh, gën a bari macha allah nit ki tamit soo xamee turam rek mën nga fa mën nga ci jaar am na loo ci dolli nga mën a xam moom euh, li ko dal lan la gàllankoor gàllankoor bi lan la mën nga jël tur yaayam tamit bu dee jigéen wala góor ñoom ñëpp mën nga jël seen tur yaay nga jaar ci loolu seen tur seen tur yaay bi nga xam seen feebar lan la wala seen jafe-jafe lan la sarax bi ñu war a def lan la bu dee sëy bu dee leneen ak leneen loolu yëpp ci listixaar listixaar moo koy génne listixaar dafa am solo lool te sarax tamit dafa day dimbale nit ki comme yonent bi sallallahu alayhi ko waxee nee na yenn aaj yu sarax rek moo ci mën dara mm-hmm. nit tamit suñu la waxee sarax def defal mm-hmm. eh, man tamit macha allah ñu bari maa leen di seetal kilifa yu bari maa leen seetal dañ may wóolu ci loolu mm-hmm. te tamit macha allah ku seetal tamit doo mer di nga kontaan dinaa la wax lu bari ci sa wàllu mbir dinaa la wax tamit sarax bi nga war a def incha allah seet moom noonu lañu koy eh, defe macha allah Cheikhna Tidiane leer li am na solo trop yaakaar naa hmm. loolu moo nekkoon mbiram seet bi. Hmm. bu paree ci loolu sëriñ bi bëgg nañ tamit dugg tuuti ci. Hmm. actualité. mbirum sëriñ. coowal sëriñ kenn ci yéen nga xam ne guddi ñu toll yaakaar naa mun nañ ne moo lëmbee coowal sëriñ si. mooy kenn ki nga xam ne ku ku ñu xam nga muy. Thierno Ahmad Koukandé te ñu xam ko mhm. ci bu baax ci wàllu sëriñ. ci mhm. jamono yi ñu weesu ñu gis ni mu génn. Mhm. def ay révélation di wax ci mbiram. xar day xar géej du ko xar. sëriñ bi ban jàngat nga am ci loolu. alhamdulilah ñu ngi bu baax. Koukandé moom xam naa ne borom fit la. xam nga Koukandé soo ko soo soo ko soo turam wi dafa garaaw na. dafa jàpp Fatiha Koukandé daa jàpp Fatiha xam naa loolu moom sirru la. Euh, léegi moom moom maanaam ku ku bari fit la xale la wante ku ñeme la parce que li mu wax ku ñemewul da ko wax ku wóoluwul boppam tamit xanaa da ko wax yàlla nag dafa ubbi ñaari bunt mooy alquran alquran nit su waxee jarul nga koy weddi wala nga koy déggal moom mooy déggal boppam wal weddi boppam alquran nee na baada audu billahi min asheytani rajim wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibkum baadu alladi yaidu bu dee moom li muy wax du dégg xam nga fen moom yonent bi sallallahu alayhi dañ ko laaj yu baari julli dina ko def rek déet waaw julli moom na ko def waan julli moom du fen mhm. bu dee moom fen day fen alquran ubbi na buntu fen mu neen bu dee dey fen bunt boobu moo ci jaar keneen du ci jaar de parce que moo fen mhm. lu ci nekk ci musib ak toora ci moom lay wàcc mhm. beneen bunt bi bu dee dégga dégga la li muy wax dégga la nee na ñi ko doon weddi ñu rus rek su booba mhm. ah man nag loolu moo tax du ma ci xaar lenn mhm. du ma weddi du ma déggal mhm. damay xaar moom mooy déggal boppam wala weddi boppam rek parce que alquran ubbi na ñaari bunt yi nee na bu dee day fen ah fen bi ci moom la rek parce que moo engagé wax wax boobu kenn forcé wu ko de te moom waxul nit tamit gëm leen ma defe naa waxul loole de wala loolu la wax waxul gëm leen ma de ñëw leen ngeen gëm ma déedéet defa wax rek neen dinaa ko def bu dee dina ko def afay la am kon su nekkee dégg ñi ko doon kontor euh, ñu rus bu dee du dégg nag moo moo weer boppam rek ah parce que loolu du wàññi ah, wala yahiqul makru makru sayyi'u illa bi ahli alquran nee na pexe bu bon bu dee xalaat bu dee waxtaan bu dee jëf lu moon a nekk rek ci moom lay wàcc du wàcc ci keneen man amila salihan falinafsihi wa man asaa'a kon moom li mu wax moom la engagé ah léegi nag dina ko def wala du ko def mooy déggal boppam wala fenloo boppam xam-xam dafa yaatu na man du ma weddi xam-xam suñu sëriñ de doon wax ne bu leen di gaaw a weddi parce que téere yi dañu bëri xam-xam dafa yaatu yàlla mooy waase mooy alim kon xam-xam du ma ko weddi te weddi moo gën a garaaw sax déggal mm-hmm. ah parce que foo weli yam linu kasbin bari na ci alquran ñi weddi safara ñi xar na leen wax ñi déggal waxul safara ñi xar na leen mm-hmm. kon ñàkk déggal loolu moom affaire am la kon incha allah man loolu rek laa doon wax xam naa ne war nañu war nañu ko ñaanal na mm-hmm. xam na war naa jokkoo ak moom maanaam moom war nañ jokkoo mhm. wante wax li ma wax rek dëggal dëggalu ma weddi woo ma xam-xam la te loolu la woote ñun xam-xam mooy ñor ah yonent bi ne xam-xam mooy lépp mhm. mooy imaam mooy jiir mooy lépp rek ah bismillah mhm. ku bëgg àdduna sax xam-xam ku bëgg àllaaxira tamit xam-xam ku bëgg ñaari tamit xam-xam moom xam-xam la woote kay xam-xam nag mën na lépp nag foofu laay tëjee euh, maanaam euh, ci poye boobu noonu xam nga dégg na ñu bari ñu ngi ci wax ñu ngi wax bàyyi na mujiza ak karaama mu'jiza mooy li yonent yoroon comme mm-hmm. yonent yàlla Muusa yoroon yet yonent yàlla Isa mu doon dundal ay maanaam néew yonent yàlla Muhammad sallam alquran nekk mu'jiza ci moom mu'jiza nag yonent moo ko yor karaama mm-hmm. nag du jeex karaama moo fi nekk ba léegi wali yi ñoo ko yor mm-hmm. loolu mat ñu képp kuy wax ci wax affaire bi da nga wax war a karaama nga war a wax war a wax mu'jiza parce que ñu mu'jiza yonent yàlla Muhammad sallam tëj na buntu nubuwa kon wilaaya mooy dox wilaaya nag karaama fa la ne moom nag demaa xamul fan la taxaw bu dee borom iznu la dina def lu mu wax bu dee amul ndigal du ko def soo amee ndigal yàlla neen wa daa'iyan ilallaahi bi izni kon bu dee borom ndigal dina ko mën a def su nekkul borom ndigal du ko ma a def man fay la ma da bunt ñaari bunti ñu ngi ñëw boppam wala fen la boppam salaamaaleykum. macha allah Serigne Thierno Tidiane Ba. leer li am na solo trop macha allah nekkoon na benn brèche rek benn parenthèse bu ñu bëggoon hmm. de vue. bu hmm. paree ci loolu Serigne bi bëgg ak mm. ubbeeku ndax mm. mm. tey nekk na jamono ju xaw a am solo. biram muslaay biram kaaraange am na solo. biram ko ubbeeku fàtku tamit. faral na nekk lu nga xam ne jaamu yàlla dañ koy faral di sabab seen bopp. waaw ubbeeku mooy al fathu wala ngoog fathu alquran andi na ko am na laayaat yu baari ñu tuddee leen ayatul fati. inna fatahna laka fatahan mubinan ba mu jeex. so jàngee nasru min allahi wa fatun qarib laaya la soo jàngee ida jaa nasrullahi ñetti fatu la yàlla fa tudd tuddoon fatu fatahan mubinan tudd fatu qarib tudd wal fatu fatu nag mooy ubbeeku bu mag bi lépp day kii léegi nag uh, ubbeeku dinaa la wax ñaari saar ndax nit yi lépp ci lépp lu mu yëngu rek da ci bëgg ubbeeku uh, bu dee day jaay bu dee de lu mu wan def rek comme yéen ñun ñëpp ubbeeku lañu la ñu soxla mmh. mooy yokku ci li ngay def mmh. ubbeeku nag ñaari saar yi ma la ciy wax mooy benn bi suratu taaha taaha maa anzalna alayka alquran li tashqa saar woowu saar bu am solo la mmh. saar yëpp am solo waan saar boobu mag yi fonk nañu ko lool am na laay boo ci dugal na ci laayaat ci saar wi beneen bi mooy suratu najmi boobu tamit saar bu am solo la am na laay boo ci dugal ba saar wi jeex ñaari saar yi laay wax ci wàllu ubbeeku mag yi nit su nekkoon ci jafe-jafe dañu koy wax bindal taaha najm dugal laa yi nga ci war dugal wala ñoom ñu bindal la ko man nag ku bëgg ubbeeku ci man am naa yu bari façon yu bari am naa ko wante bari na li may defal nit suratu ta suratu taaha suratu najmi parce que ñaari saar yi soo ci dugalee li nga war a dugal nit ki su ko sàngoo rek il faut gis dara ku nekk ci jafe-jafe rek soo ci boolee tamit li njëkk ci suratul an'am ba ila eh, taksibun soo ko bindee boole ko def ko saafara am na yeneen ay sunguf bu muy àndal soo ko defalee nit ki insha allahu taala il faut mu gis ubbeeku bu dee ci jafe-jafe la nekkoon jafe-jafe wi dañu jeex bu dee musulaay nag moo ci tegu euh, ñi bari nag balaa ngeen defal affaire ubbeeku dangaa war a jiital musulaay ci ñoom musulaay day fóot nit ki ci li nekk ci moom bu dee liggéey moo nekk ci moom il faut nga fexe ba liggéey bi deñ bu dee cat ba liggéey bi maanaam be cat bi deñ bu dee cat bu góor wala bu jigéen parce que ñaar la bu dee tamit euh, yeneen gàllankoor yi ñoo nekk ci moom tamit dangay fexe comme rab ba gàllankoor yooyu jeex wante fu dee bu dee rab mu ngi ci moom nga koy sàng euh, fatu mooy ubbeeku wala liggéey mu ngi ci moom euh, nga koy defal ubbeeku wala cat nga koy defal ubbeeku loolu du yom il faut nga fóot yaramam ci yooyu ba mu jeex bu dee da koo amee incha allah nga def soo ko defal fatu bi soo ko defee rek dina gis résultat incha allah. noonu laa defee fatu allah Serigne Thierno Tidiane Ba leer li hmm. am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon adat bi maanaa bi hmm. ci wàllu ubbeeku ak muslaay. Hmm. bu ñu ci loolu tamit bëgg nañ ñëw tuuti waxtaanee jafe-jafe bi nga xam ne. Serigne bi muy góor muy jigéen gudd yu ñu toll. nekk na gàllankoor ci ñoom. Mm. muy ki nga xam ne góor la. Mm. toll ci amum soxna. Mm. am soxna nekk li nga xam ne day doon li ko jafe. nekk na tamit ci soxna yi nga xam ne toll nañ ci atum sëy. amum tamit jëkkër nekk li nga xam ne day doon li leen li leen di gàllankoor li jafe-jafe si ñoom. sëriñ bi lu ñu mel lan moo ci saafara. ak lu koy waral. waaw bari na lool li ma wax léegi tamit bokk na ci jigéen yu bari dañu amee rab wala góor yu bari. ku nekk rek ñi amee soxna jinne ñi amee euh, maanaam jëkkëru jinne loolu moo tax pour ñu sëy problème la parce que day day day day day fiir bu dee jëkkër bi bu dee soxna si ki ko amee rek day da koy fiir da koy yàkkal lu bari ñu bari dañ lay wax ne man dañu bari dañu ñëw waan su ñëwee du ñëwaat rab dina ko def liggéey dina ko def cat dina ko def ñett yi dina ko def léegi nag nit il faut nga jàppale ko balaa nga koy defal dara danga koy seetal bi nga xam gàllankoor bi lan la ngay gis ku ku rafet macha allah war a sëy ñëpp daanaka dañ koy bëgg want nag mënul fexe ba sëy wala war a am soxna mënul fexe ba am soxna kon mbir mi lan la lan mooy problème bi kon il faut nga dem dugg nga xool biddewam lu ci aju lan la lan mooy gàllankoor gi bu dee rab nga fexe ba mu denc moom bu dee liggéey bu dee cat bu dee leneen nga fexe ba mu denc su boobaa nga ñaanal ko ci wàllu sëy su boobaa dina am bu dee daa bëgg am soxna am na am na téer yoo koy defal wala ay ay sangat yoo koy defal am na téere boo xam ne dañu koy wax tilimal téere lañ koy wax hmm. boobu soo ko bindalee ku bëgg am soxna balaa muy tilim day am soxna hmm. beneen bi nag moom jigéen nga ku bëgg am jëkkër nga koy defar balaa muy tilim day am jëkkër ah loolu tamit ki bëgg am jëkkër bëgg am bëgg sëy ñaari laaya la laaya bu nekk am na adat boo koy bind bindal bi góor bindal ku jigéen ki su booba dañuy dañuy kii waaye ñu bari tamit bu dee wàllu cofeel parce que day day dugg foofu cofeel maanaam maanaam tasxiir mooy mooy nopp boole ñaari nit loolu tamit so demee ci wàllu mbind ay xawaatim maanaam bari na loo ci xawaatim yi soo demee ci wàllu fas bari na soo demee maanaam ci yeneen façon yi même ci sunguf am na ah loolu nag nit ki macha allah lii lu bari dañ koy defal nit yi am na nopp yu garaaw yoo xam ne sax yenn yi xaj nga koy jox yeneen yi tamit ci lekk nga koy def yeneen yi tamit fas lay doon yeneen bari na daal macha allah yoo xam ne dañ koy dañ koy def même ci garab garab boo xam ne macha allah. ko soo fa yóbbu ay nit rek ba nga leen foofu tamit macha allah su boobaa incha allah déggoo dina am eh, maanaam bu dee tasxiir bu dee mahabba mooy chafeel loolu yëpp incha allah noof bi nga bëgg di nga ko am. loolu laa si junj. macha allah Serigne hmm. am na solo trop. yaakaar naa ne bu ñu paree ci loolu Serigne bi bëgg naa tamit nga ñëwal mu tuuti ci mbiru. secret bi nga xam ne. ñi nga xam dañu bëgg tey mucc ci kaso. Hmm. nga yor si secret nga xam ne secret bu buy mm. kéemtaan la nga nekk di ci def. lu mm. yéeme yéeme ci ci ci ci pàcc boobu noonu. Mm. kaso biiru kaso. kaso tamit macha allah yaatu na ñaan yu yaatu leen ci yore ci alquraan bi ci yeneen ñaan yu bari ci wàllu macha allah sunguf am na maa ngi koy wax ci ay waxtaan yu bari nag am na benn tur wala benn maanaam tur rawxaan la. booy bind ci benn bant uh, bu ñuy wax maanaam bant bu jógee ci jaag jaag mooy fi ñuy teg néew suñu koy yóbbu Eh, bant bu jógee foofu nga jël tur rawaxaan boobu bind ko ci bant boobu ki nekk ci biir kaas nga jox ko mu tëdd ci su ci tëddee rek day génn am nga néew kenn du ko tey néew moom ñëpp dañuy wax nañu fexe mu génn kër gi mm-hmm. bu dee ci kaso bi la tamit nga bëgg génn soo ko joxee bant boobu mu tëdd ci kaw il faut mu génn ni ñuy génnee néew daal noonu lañ koy génnee du am du am jàmm daal balaa ñuy am jàmm daal ñu génnee ko ci kaso bi rek mm-hmm. beneen bi mooy eh, sot sa bismarabbikal aala am na laay bu muy àndal nekk soot yaasin soo ko bindee dugal turam foofu eh, xorom lay àndal su ko naanee bu doon ci kaso la nekk day génn ku bañ a dugg kaso nag mooy am na saar boo koy bindal def ko ndomb wala def ko téeri du mos a dugg kaso am na sangat boo koy sangat tamit su tiitoon dañ koy tëj tamit kenn du tëj mhm. loolu laa lay jun ci wàllu macha allah Serigne Thierno Tidiane Ba. leer lee am na solo trop bu ñu paree ci. Mhm. mbirum kaso bëgg ñu ñëw ci. ñi mhm. nga xam ne ñu ngi biir. ak bopp Mm-hmm. buy metti souvent mm-hmm. nekk na seen gàllankoor sëriñ bi mm-hmm. duñ toll loolu nekk na benn jàngoro bi nga xam ne day faral di di di di di di ñu bëri mun nañ dem sax ba ba ay hôpital daanaka seeti kër docteur te daanaka du ñu gis lan mooy waral loolu tamit te kenn duñ ci am saafara mbiru bopp ak biir yuy metti sëriñ bi waaw euh, bopp buy metti de loolu moom am naaj ci xam-xam macha allah parce que dama ko doon sama papa moom fii macha allah dañu ko xamoon lool ci wàllu bopp yàlla mayoon na ko lool ci wàllu wàllu bopp ñu bari moo leen doon moccal te jàngal na ma loolu te alquran la tamit dara nekku ci dul alquran am na jat yeneen jat nag wante moom lu lu mu yoroon alquran la e, da doon jël ndox ndox la doon mocce maanaam moom day tooyal lox yi mu bopp bi am nga yonent bi e, sibbiru dafa mel ne ngelaw buy ëpp jóge ci safara ko na ngeen seral na ngeen fexe ba mu ba mu ngeen seral ko daal loolu moo tax il ngi tooyal loxo ñuy mocc loolu nag bopp bu mu lu mu nu mu mel métit bu mu mën a am amu bopp ñaar la liggéey mën na ko def chat mën na ko def euh, rab mën na ko def maanaam ngelaw seytaan mën na ko def te tuuru tamit mën na ko def parce que bopp day tuuru yenn saa yi nit benn benn côté bi rek mooy mooy mooy métti wala fii mooy métti loolu nag li gën a bari ñuy sëgg ñuy liggéey ñoom lay gën a dal bu dee ci wàllu wàllu bopp buy tuur ñaar yooyu la jàngal jàngal na bopp buy métti rek métti bu mu mën a wala bopp bu tuuru parce que ñaari mocc la bokkul loolu nag macha allah maa ngi maa ngi koy depuis sa bi mu demee ak léegi maa koy yore maa koy def maay moccal ñu bari wàllu bu bopp bu tuur wala bopp buy buy métti lépp lu mu mën a doon daal alquran dina ko jeexal waaw nit ki nag mënul dara yàlla mën yàllaay def yàllaay dindi soo xamee loolu nag bul nangu mën naa bul wax mënuma ki mën daal mooy yàlla yow daal yow ñaan ñaan ngay def ki ngay ñaan nag mën na lépp mhm. kon loolu doon alhamdulilah macha bi leer am na solo trop yaakaar naa ci loolu sëriñ bi bëgg mhm. ki mooy mbirum Hmm. yàq sa yu bi. waaw ah, jigéen yi de mën nañu muñ lu bari ba des loola defe naa su ma juumul daal mën nañu muñ lu bari ba des loola loolu moom problème la pour ñu pour ñu pour ñu ñu ñu mën koo muñ parce que dépasse zahir dafa am dépasse baatin dafa am dépasse zahir nag mooy ñëpp ñoo koy bokk demal ci marché ba nga jënd li ngay jënd yaa xam ay jën ay carotte nga ñëw togg añ ñëpp bokk. Hmm. sukk ci bool bi lekk. beneen bi nag moom daanaka guddi lay gën a bëri. dépense mhm. guddi la dépense biir néeg tëj buntu yi wàcce rido yi ah aywa fay lamp yi. Mhm. loolu nag macha allah dafa am lu fa war a kii. Mhm. lu tax nga ji nit ki jilee soxnam kër baayam wala kër yaayam indi ko. bu dee lekk am na foofu. bu dee naan bu dee fóot bu dee defar néeg am na foofu léegi nag li ko indi leneen la yow rek yaa ko ko mën a defar. ki ko indi moom rek moo ko mën a defar du keneen de ah. léegi nag bu dee moo ko mën a defal te mënuloo ko mënu ko koo defal na kon affaire day day day am day am problème de kon su booba il faut ñu ut ut pexe loolu nag mooy mooy kattan kattan nag mooy nguura nguura keng loolu tamit macha allah am na ay garab yu bari yoo xam soo koy jëfandikoo doo néew doo doo kattan mukk mm-hmm. su néewoon tamit day ñëwaat. Mm-hmm. Ah, am na garab yu bari ay reen ay sunguf mm-hmm. am na yeneen yooyu bind tamit ci alquran am na ay turu yàlla yoo xam ne tamit soo koy zikar sax dula la a dal mm-hmm. am na benn maanaam turu benn sirru la mm-hmm. eh, juróom ñetti turu malaika soo ko bindalee nit ki du du ko loolu du ko mos a dal mën na koy zikar di ko dañ koy bind da koy naan Hmm. tur malaayika yooyu hmm. da koy naan bu dee li ñuy zikar nag hmm. mooy turu yàlla am na turu yàlla ñu di ban baaxee ko waaw yaa qawiyu am na ah yaa hayyu am na yaa matiinu am na yaa hayyu yaa qayyum yaa mat yaa matiinu euh, lim boo ko def baax na waaw lim boo ko def baax soo defee sax hayyu baax na hayyu mooy dix-huit soo defee loolu ba yaa xayu yaa qayum yaa matin yaa xayu yaa qayum yaa matin yaa xayu yaa qayum yaa matin am na ñuy wax tamit latif da koy def mm-hmm. day day day day yokk kattan mm-hmm. bari na daal maasa sirru yi bari na waaw léegi nag euh, loolu ku koy jëfandikoo doo doo doo la mas daal yenn ñenn ñi nag rab moo leen di jàpp mm-hmm. wala liggéey wala cat takk kala loolu yëpp mën na am loolu soo ñëwee nag dañu lay sangat dindi loolu siiw bu dee rab bi bu dee liggéey bi bu dee wàllu cat bi. incha allah day denc yi. macha allah Thiam ba leer li am na solo trop waxtaan bi am na solo trop macha allah. Mhm. mais Thiam Tidiane ba ñu la mhm. bàyyi. Mhm. te duñu waxtaanee tamit. mbiru làmb. parce que suñu borom daf la may am. gis-gis bu ama am solo. yaakaar naa xew yi. waruwaay yi bu daan yegsi. loolu ci daan wax rek. day nekk xataa tey jii. bu ñu sa bés ba day nekk lu wér. Balla Gaye bi nga xam ne ak. bombardier yi moo nekk actualité temps yi sëriñ bi. Hmm. la la woon ci ci ah, bu doy waar am nga ñu bari eh, mbër yu bari ki leen di ñaanal sama nijaay la. Hmm. soo demee côté Njàmbur hmm. ci àll bi fa la nekk. moo fasal mbër yu bari moo leen fasal. Ah, am naa lu ma jëlee ci moom nag. wax na ma. waaw mu nekkuma fa mhm. waaye su ma demee foofu daf may wax mbër yu bari ñu fa jaar mhm. te àddina bi yëpp ñoo koy soxla mhm. macha allah kooku ci wàllu fas waaye na ci lool ñaari mbër yi nag li ma ci wax rek mooy ki fi ki fi njëkk daal fii ku njëkk ñëw fii yaay daan incha allahu la yóbbu fu ñu lay a def ku njëkk ñëw fii rek ku njëkk ñëw ndam li yaay borom waaw ku njëkk ñëw fii bi iznillahi taala laa wax de waxuma gi de bi iznillahi taala déedéet hmm. bi iznillahi taala laa wax ku fi njëkk ñëw yaa njëkk daan parce am na fu ñu lay yóbbu suñu la dugalee foofu moom jeex na lu ñu defati rek yàlla yàlla kii hmm. da koy daf da koy delloo. donc mbokki internet yi yéen a naa ci lu bari nag xam nga maandu nag tax yonte bi neen min husni islami am solo. Mm-hmm. loolu moo tax ma ci maandu nag am yu bari yuñ ci gis waan jarul. Mm-hmm. Ah, li ma wax noonu rek doy na. macha allah Thierno Tidiane Ba donc. Mm-hmm. leeral yi am na solo trop waxtaan bi am na solo trop macha allah mais daanaka mun nañ ne ñu ngi ci cappaandawu émission bi waxtu nekk na li nga xam ne daf la xaw a tënk. xam naa du ñu ñëw bàyyi na nga tàggatoo ak ñu mbokki internet yi. sëriñ bi. lan ngay tàggatoo ak waaw kanaa sant yàlla bu baax war a dellu ci yàlla tamit euh, parce que dañuy wax ne dee ku mu waarul dara doo la waar yonte bi bi muy dem nag ñaari la fi la fi béy nee na béy naa ci yéen ñaar mooy alquraan ak euh, ak ak dee alquraan day wax rek du noppi dee moom du wax day ñëw rek di jëf te day alquraan nee na du ñëw lu dul day bett lu lay bett na waru bett sax parce que kenn ku ne dangaa xam nga xam nga dangay de ku nekk xam na ko léegi dangaa xamul kañ ngay de suba lay doon wala wala guddi léegi nag euh, ci ndaw wala ci mag kon kenn ku ne daal na nga xam ne bee dee moon na la fekk fu nekk xam nga mag yi ragaluñu woon euh, maanaam euh, bakkaar ragaluñu woon bakkaar su ma waxee loolu dina doy waar lu ñu ragaloon mooy dee fekk leen ci loola ci lu ñuy def mm-hmm. loolu moo tax ñu faf bay loolu moo tax nag macha allah euh, feebar bi feebar bu garaaw la mu ngi ci biir nit yi nañu gën a jël suñu matuwaay ñu gën a déglu borom xam-xam yi tamit alquran la nee na atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum topp leen yàlla ngeen topp yonente sallallahu alayhi wasallam ci li mu leen digal waa ñi borom xam-xam yi tamit ngeen déglu leen ñun nag dañu nekk fii di wax rek te docteur yi ñu ngi wax rek toujours na ah, ñu ngi wax kon nañu leen déglu kon incha allah loolu laa bëggoon tëjee rek nañu farlu ci suñu njaboot farlu ci suñu bopp ñu toppatoo suñu bopp jël mesure yi ñuy joxe incha allah suñu ko defee rek su boobaa lépp dina dina dina dina dina yomba ci ñun te yàlla dina dindi feebar bi wante kuy dof doflu euh, yàlla mooy reye nangam nangam demal taxaw ci kaw tali bi oto suy ñëw nga bañ a daw ah su boobaa nag su ñëwee di xam yàlla rey walla lan mooy lan mooy reye kon na ñëpp gëm nañu yàlla waa nañu def li ñu war a def yàlla yàlla peese tool ñu ngi leen ñaanal bu baax di wax kullu amin wa antum bi xayrin di jéggal ñëpp nag feet bi ñu jógee yal na yàlla may fekkee déwén yu bari bari bari te yàlla nangul ñëpp ñu njëkk julli ñu mujjee julli yal na yàlla nangul lépp bi jaahi rasul in urid illa al islam ma stataatu illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa salaamu alaykum wa